yomb na yombul parce que yomb gi euh, liñu ko may moy yaga def parce que ren la sixième édition euh, yalla may ñu aussi tamit ñu nekk ay euh, nit ño xamné ci biir set danaka ndaw ñeeg mag ñi ñëpp benn lañu te yaakaar ni li ñoo fee la force moy mbolo moy doole mbolo sep sen andando man j'espère que dañuy jooy espace mais sep mën deux fois lu melni parce que tamit and bi ñu ànd ñun suñu biir ñun moo ñu may loolu mooy jiital suñu président ñun ñëpp ñu ànd ak moom ci xelam ak xalaatam mu ànd ak ñun ci suñu xel ak suñu xalaat chaque année bu ñu ñëwee day mel ne ndox mu ñuy naan franchement parle parce que lu ñu xam la lu ñu miin la te lu ñu yàgga def la loolu moo tax set njariñ bi daal bari ñu jàngee tamit lu bëree bari aussi tamit ci biir set mooy ànd bi ak booloo bi bokk ndey bokk baay yëkkatendoo tegandoo dóorandoo moo ñu may lii lépp waaw liggéey liggéey ko indi set mu nekk benn structure boo xam ni euh, njiit ji njiit yi dañoo suude wu déggoo ànd ak ndaw ñi déggoo ku ne jox sama moom cër ñu àndandoo ndoo di tegandoo talal ñëpp loxo xeebuñu kenn loolu moo tax ñu agsi fi ñu agsi li olof di wax ku yokk cere da ngay dolli ñeex mënatul yomb à tout moment niveau bi day gën a yéeg waaw fi laa mesure niveau bi di yéeg li ngay def di yokk sa financement di yokk sa coonoo di gën a bari voilà mënatul yomb daal waaw mais nag sant yàlla

rafetlu teewaay bi ci foar bi wa di nuy ñepp di wax ne wax deug yalla contane nañ ci foar bi parce que lepp luñ ci doon euh, séntu rek gis nañ ko ci wa di ñaan éleveur yépp suñu borom defal leen jamm képp ko xam éleveur yépp ku nekk lim bebet ci xolam muy ci élevage yalla nako suñu borom jappandi di rafetlu teewaay bu baax di la sant bu baax sama jëwriñ ji waa euh, seb bi amna niveau trop waaw niveau bi euh, kawe na lool wax dëgg yàlla parce que box boo dugg rek euh, soo xoolee rek da ngay xam ne am na mérite mérite gi mu am mooy euh, li mu teg si taawal da xam ne lii du liggéeyu caaxaan waaye di wax ne élevage bi toll na foo xamante ni léegi amatul frontière yooyu yaay xool fu la neex rek ak fi nga xamante ne bii tey loolu moo mën a soqali sa liggéey rek nga tibbee fa mais ñëpp si ñu ngi ci liggéey bu am solo boo xamante ne bii tey jàpp naa ne fii ak si kanam tuuti. Euh, élevage dina dox ay tànk yoo xamante ne bii dina dina dina yéeme daal. waa effectivement xam nga mooy bokk ndey bokk baay bi ñuy wax mooy que ni tey bu dañuy jàng ci foire yi li ëpp ci foire yi dañuy jël koo xam ne rek tey exemple ci élevage la nekk tuddee ko ko mais day fekk mu nekk borom daraja te j'espère que ay nit bu ñuy ànd mat plus de deux cent et quelques personnes kenn ku nekk war naa yëg boppam ci li ñu bokk tey moo tax daanaka li ñu lay wax ne la sepp xàmmeewul ki am ki ñàkk chaque jour rek ñu ngi jéem a essayer. nit ku nekk ci biir set naka lañ lay delloo njukkal ci biir li nga ne te yaakaar naa ni moom moo indi couloir yi yëpp boo ci gis rek tey am na kuñ ko tuddee tey jii nga gis euh, couloir bële nga gis fa la gars yi di concouré man mii lañ ko tuddee sama photo ma nga fa macha allah nga gis ni rek euh, innovation yooyu dafa nekk ay innovation yoo xam ne ni bu ñu bokkul woon di ànd nekk benn di yëkkateendoo di tegandoo loolu du mën a nekk loolu rek mooy suñu forme. waaw xam amélioration bi soo gisee niveau bi foire bi am nga xam ne euh, éleveurs yi ñu ngi ci.

loolu mooy particularité waaw xam nga ah, bureau bi léegi communication dafa xaw a yaatu tuuti am na nañu whatsapp tamit des fois dinañ réunion ci whatsapp bi des fois dinañ def réunion boo xam ne bureau la ñuy daje toog réunion waxtaan yëkkateendoo dóorandoo waaw waaw dañ am dañ am nañ sponsor am nañ ay sponsor yoo xam ne ñëw nañ ñëw nañ jàpp ci comprendre nga c'est-à-dire affaire sooy démarrer yow doo dépendre ci sponsor say moyen ngay démarrer fur et à mesure avancé sponsor ñooy gis ni yow yaa ngi liggéey sa liggéey rafet na après ñu ñëw en participer. waaw tey dama ñëwoon tey euh, tey ci bi euh, doon xool xar yi et tout mais macha allah quoi foire niveau quoi waaye xar moom macha li ñu xool ci xar yëpp macha allah ñi euh, ñoom quoi. waaw bon bokki boo mën vive nii booy xool.

xam leen lu nekk fa nga koy jëlee ak bu ñëwee fan la war a tegu yaakaar naa ni pour mu am jafe-jafe bu bari du bari peut-être li ciy nekk jafe-jafe tuuti rek mooy li ciy bees muy innovation yi ngay bëgg euh, te mu leer ne yéene bi nga am mooy réussir ko te yàlla mi ngi ñuy may chaque innovation bu ñu ñëwee rek ñu ngi koy réussir. xam ne du du du liggéeyu yàqamti quoi te du liggéeyu tey quoi te du benn maal tamit ay maal yu wuute bind yu bëree bëri jaar na parce que ku jël Ilias doomu korom mag liggéey si ba pare dugal Faris euh, ado bi liggéey si ba pare ñëw jël baraka looloo waral tey xar yi bu si am 12 mois waxuma la sa yaay sax mais da nga koy tiim. comprendre nga di wax euh, di ñaaxaat sama mbokk éleveurs yi rek di leen wax ne élevage moom daa doon loo xamante ne bii bëgg gi da ciy jiit ba pare yéene ñëpp jàmm parce que daa doon loo xamante ne li ngay yéene nit ñi rek loolu suñu borom di jox ba tax ne maa ngi siy ñaax ne euh, ndaw yi ak ñi nga xamante ne bii ñoo tolloog man buñ am frontière ci élevage nañ bëgg xar rek te fu mu nekk na leen ñor buñ am calan buñ am dara fu élevage nekk rek na leen xar ba ñor loolooy waral tey xar bi nga xamante ne bii tey mun na laa dolli rek day yomb pour nga jot si parce que élevage du kalan élevage dara parce que élevage li muy boole day bëri élevage boole na ay xare day boole xale ak mag di boole ay mun naa ne sax soo bokkee si élevage dëgg euh, soxla boo am soo xoolee sa calendrier dina am benn éleveur bu koy def muy médecin muy lu mënti doon moo tax ne ci lim tënku dafa doon loo xamante ni bii euh, sunu borom da kaa barkel. waaw waaw ah bëgg naa ko de mais bëgg naa ko de <laughs> franchement naa ko waaw aa ah, non mais kii ma leen war euh, euh, ñaari ñooy euh, xool xare et tout xari moom wax dëgg moom xari moom wax dëgg ak ak toppatoo bi bi leen gars yi toppatoo wax dëgg yàlla bu kii boo ñëwee fi moom franchement da nga leen bëgg quoi franchement may wax gars yi gars yi ñaanal ma ci incha allah su si duggee ngeen ñaanal ma ba ba kii li nga bëgg yàlla yàlla defal quoi yàlla mën ko yàlla na ko yàlla def incha allah rabbi ba en ñaan yàlla defal ko jàmm quoi <laughs> waaw ba affaire yi gën yaatu <laughs> yàlla mën na ko. sant képp koo xam ne exposé nga di di féliciter encore une fois maanaam waa SET di féliciter waat membre de bureau yi mais di féliciter waat membre simple mais di féliciter waat aussi tamit yéen ñi nga xam ne tey euh, fu ñu bëgg a yegg yéen yéen a ñu fa yeggal parce que am na tey koo xam ne tey lii may wax ñëwul fii te bu bay bu sañoon xam li fi ne tey ngeen may ko moom mu mën a xam li ne fii. mooy que ni élevage daal def na jéego yoo xam ne wax dëgg yàlla euh, fooguñu ko woon waaye tey yegg na fa boo ko defee rek ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm képp koo xam ne rek tey nga ci bis bi ak ku a doon rek nga teew fii mooy ñi exposé ñi fi ñëw comme visite yéen ñi nga xam ne ñëw ngeen fi pour wane image yi amul kenn ku ñu bàyyi ci kaw ba ci suuf ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal ñëpp yàlla mu may ñu jàmm déwén ñu teewaat fi comme nii defeewaat ko nii incha allah. waa di la sant di la gërëm di la jaajëfal bu baax di la jox sa wàccuwaay

santal nga xam ne yaag éleveurs yoo bokk ku saxar am note boo xam ne dafa moyen santal xam ni yaag éleveurs yoo ñoo ko bokk ndax ndam bi du génn set du génn banlieue bi kon jàllu xëccoo jàllu xiiroo jàllu ŋaay nañ tàppe xol yi yëkkateendoo dóorandoo set avancé jëm ci